franchement ñun dañuy ñun ay politique ay homme politique lañ. bu baax du dëgg. politique rek ngeen def. kese oui nest mm-hmm. léegi ban membre APR mooy gagnerait à ce que le candidat choisi par le président Macky Sall qui est le secrétaire qui le président de notre parti. Mm-hmm. soit dis dis discrédité. kan moo ciy gagné amul kenn ku bokk. APR kuy gagné non amul ñi ciy gagné xam nga ñan la. ñan la ñu taxaw ni du Ba parewul pour gagner élection yi. non non non Amadou Ba non non non non parce que ñooñu parce que ñooñu ngay wax sax ñooñu ngay ah. wax ñooñu ngay wax su fekkee ne am na mais Amadou Ba bu perte ñoom dañuy perte. bon loolu. ah mais si non non mais loolu. c'est-à-dire ñu mais c'est-à-dire que. APR APR pas d'accord sur le choix et au-delà de APR sax. gis nga souvent on fait dañuy def benn abus de langage Amadou Ba n'est pas le candidat de l'APR. non de la coalition Benno c'est le candidat de Benno il est investi par tous les partis. mais les réticences ñu ngi leen di découvrir surtout biir APR. Amadou Ba ci boppam il a reconnu wax na ko. quand vos amis de Dakar Actu l'ont wax na ko il sait que y a dans le dans la famille n'est-ce pas dans le Benno mais mu ngi ci liggéey pour pour pour réunir n'est-ce pas pour utiliser ces termes yàlla sax amul unanimité mm-hmm. à plus forte raison moom mm-hmm. donc mu ngi ciy liggéey loolu xam nañ ko mais li ma gëm mooy amul kenn ku nekk ci APR boo jullee di ñaan yàlla na Amadou Ba perte mais loolu mënul nekk parce que bu Amadou Ba pertee nga perte c'est troisième considérant